alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi Moustapha di sëlmal ci moom ñu ngi sant Cheikh Ahmed Tidiane bahrul anwaari xatmul awliya góor googu nga xamne mo moo na rajulha min qaafin ila qaf ñu ngi koy ndokel waaye ñu ngi njukkal daj dëpp gi lépp ñep fajkati aajo yi farkati bakari yi bàyyi daam ak aas waaye Cheikh mohammedul Mahi Ibrahim mbokki taalibe yi Kossy TV seen soppe Baye Diouf mu Baye Géwéli Baye mu ngi leen di nuyu di leen ziar ziar bi nag mu ngi jibee fii ci aéroport di tertu si suñ xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim comme ni nga ko waxee dañ ci sant yàlla bu baax nag eh, di kontaan ci li ñu yàlla may opportunité ñu ñëw fekkee bés bi ndax bés la boo xam ne bésu ngenel la bés la boo xam ne bésu yokkute la bés la boo xam ne bésu taar la bésu ndam la ndax li Cheikh Mouhamadul Mahi doxi woon fa mu jógee ku nekk xam na ne tànki bàyyi rek moom la topp ndax Mawlana Cheikh Ibrahim moom li ko taxoon a jóg mooy benn le benn ne àddina bi rek ba mu juddoo be sax moom Cheikh Ibrahim dañ ko ooyee Ibra Sotu ibra satu nag lu leer na ñi la ibra mooy puso satu mooy wañ pusoog wëñ li ko tax a jóg mooy jël fii morso jël fii morso jël fii morso dajale ko ñu tuddee ko darab mooy bàyyi moom dafa ñëw pour réunir xeet bi rek soppe yi yonun suma salaay sallam ak taalibe tijaan ak taalibe yi benn le leen cheikh mouhamadul nag tànk yooyu moom lay wax ne moom la dox ndax dem na Darfour Euh, ni ñu ko waxee lu tolloog cinquante tribus nga dajale leen fekkoon leen ci ay fitna nga wax ak ñoom bañ jël seen ngànnaay teg ci suuf jàmm juddu fa dëgg-dëgg dox na ay tànk yu rëy yoo xam ne waroon na tey man suma gis-gis tey aéroport bi fii bloqué waaw dafa waroon tey Sénégal yëpp di rëj rëjloo d'ailleurs am na benn taalif boo xam ne sax tàmbali naa ko biig ci guddi mais bañut bañ togg bu ñorut daaw déedéet maanaam dama koy dëxëñ maanaam togg gu ñorut moo tax nanguwuma ci wax dara damay noppi jël suma temps ba mu pare ko ndax Cheikh Mouhamadul Mahi mi ku jara njukkal ndax dafa aw tànki Mawlana Cheikh Ibrahima damay wax ne tey réew mi yëpp tey waroon nañu rëj rëj loo daje si fii ngir teertu gaynde ak njolloor doomi gaynde gi doomu yërmande gi yàlla gi jabarul kasri eh, waa ji nga xam ne wéykat ba waxoon na ko ne ko mbaal guy jàpp benn qualité ak jën borom munta mbaal basrul wujud bi yaa mat bàyyi mu ne mbaal guy jàpp benn qualité ak jën borom munta mbaal fardul jaami bi doo marché di baraam kon dëgg-dëgg ñu ngi sant di ndokkeel jullit ñi rek di wax ne pay bi am na ndam tariqa bi am na ndam faydu bi am na ndam waaye ñu ngi ñaanal xaadimu umma mi Cheikh Mahi yàlla na fi yàgg te wer man sama sûr et certain que def naa ko sax ci benn vidéo piqué yi nga xam ne bàyyi sampoon na ko mu suulu lépp Cheikh Mouhamadul Mahi dana ko sulli waaw moo tax nag kon ñun ñëpp nañ ko ñaanal gudd fan ak wér ñu ngi ndokkeel julli ni yëpp di jégalu ci kàddu yi ndax yu mel ni sang yi buñ xesee kàddu ñun buñ toogee dañu war a déglu ëwal bàyyi doomu Cheikh Abdou Barhama moom bu waxee ñun dañu war a noppi ak sang yi fi wax yëpp ñun dañu war a dégloo rek waaye nag ah, comme jox nañu kàddu ne nañ ci sànni baat duñ gantal ndax gantal gi man ñàkk te gin laa ko jàppee. Kossy TV ñu ngi leen di ndokkeel ndax Kossy TV télé la boo xam ne nii li muy liggéey pays bi yëpp gis nañ ko maanaam sagu faydu bi la tiitaru faydu bi la ndambu faydu bi la ñu ngi leen di wax ca kaw ca kanam rek ndax Kossy man ku bëgg Kossy laaj suma xol lépp luñ ko laafaale rek loolu daf may neex man suma kër fii ma dëkk Kossy laa ko tuddee Kossy Dakar li ko indi na Kossy mbóot mu rëy la waykat ba mu ne koosi ko oosun la ay kaas lay yu ñuy naanee leer foofu la faydu ba doon waamee Sidi Barham bi mbir yi tàkkee jallangoor gi dafa retiré wu dem ba koosi mu samp fa baas ba toll fa nag di sànni ay jumam ci goxi àddina bi ba gaañ dajaloo ca néeg ba ca koosi sax di ko laaj ne ko ñas ndax lii luy dem la bàyyi def leen tontu ñoom juróom ñaar ñooñ ca néeg ba mu ne leen faydu bi santut ñas danañ ko tàllal ba fa soob yàlla ñu leem ko fa xanaa xamu leen ne nit dana jógee ba yaman ñëw suma faydu bi Cheikh Ibrahim waxoon na leen loolu ñu toog rek ba shérif yaman yenu waxandem jógee yaman bàyyi yaa faatu ay dara egsi bàyyi oo ña fekkee woon la mu ne lu ma leen waxoon ñëw leen ngeen xool shérif yaman ñëw na uyu si lim indi nag muy faydu nga xam ne Cheikh Mahamadul Maay sol na dàll mu ngay wee liggéey booba mu ngi koy yaatal bàyyi waxoon na ne wa sirri sarafil xaafi xëy na oqimat mbóot mi mu indi dana roogaat dafay mat ngopp ak ngalandu penkook sow dara du des kon nag Sénégal ñun ñoo am loolu fierté boobu ñun pour sénégalais yi la nañ xam liñ am li ñu yàlla may yàlla may nañu Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne amul may gu ko féete ti kaw kon ñu ngi ñaan yàlla nañ ko jëriñoo ñu ngi jégalu baax ci kàddu yi wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf ñu ngi am mbégte bu baax a baax